lañu fi andi tey nag doxalinu social la doxalinu yërmande la waaye doxalinu li nga xam ne mooy suñu cosaan di suñu aada di suñu diine mooy li ñu xam fii ci Afrique laata sax ñuy wax diine ak diine bu mu doon waaye li xam fii ci Afrique ak diine bu ñu gëm lañ ñu jàngal mooy di joxante loxo di jàppalante di dimbalante ab société lay màndargal ni société boobu am na justice société boobu am na équilibre mooy kenn du dem bàyyi ci gannaaw ña ca des ña mën wala ñu am dañuy talal loxo ñi ñu tane jàppale leen ba suñu mënul yegg seen niveau it ñu mën a am le minimum pour dund dund bu jaar yoon looloo tax bi ñu euh, mais monsieur le maire Barthélémy Diaz waxee initiative bi dañ koo rafetlu ne ko nag dinañ ci indi suñu contribution ndax yàlla def na amuñu ay milliards yu ñu jox nit amuñu ay dizaines de millions yu ñu jox nit waaye nag jàpp nañ ni am nañu image bu ñu war a mun a boole ci lu mel nii moo tax politique taxuñu fee ñëw su dee yàlla may na la nga ne ci dëkk dund fa yaroo fa gi am loo doxal ak dëkk ba ba ñu xoole la benn bët image boobu nga am moo xam ci loo ko amee nag muy artiste bi muy nitu diine gi muy acteur politique bi muy sportif bi image boobu warul doon loo xam ne rek danga koy yemale ci li nga xam ne mooy sa yitte bopp bu dee ñun ñi acteurs politiques yi dañ dañ naan image bi ndax dafa yem rek ci xool nu may amee ay carte électeur déedéet image bi léeg nga yëkkati ko jëfandikoo ko ci ay cause yoo xam ne luy dimbale doomu aadama kese la te séntuwoo ci leneen looloo tax lu mel ni ku ñu ci woo dañuy yàkkamti ñëw ci wax naa léegi ni suñu société ci yërmande la lalu te nag ñu war di am tout le temps di yeesalaat loolu ñun ñëpp gis nañ li xew ci jamono ji ci diir goo xam ne su bëree ba bëri ab weer la lu mat 480 euh, jeunes ñàkk nañ seen bakkan ci géej gi loolu ñun ñëpp la war émouvoir ñun la am fu mu yegg si ñun ci suñu xol ndax société warul seetaan ay nitam ay ndawam teg toll ci niveau jaaxle ba dañuy sac dañuy sacrifier seen bakkan ñun ñi ñëpp gis nañu li xew ci famille Termes yi loolu société waru koo seetaan ndax nit li gën a sacré ci li nga am mooy dëkkuwaay ak loo ñàkk ñàkk ñàkk fekk am dëkkuwaay boo xam ne ci ngay fatu mu protéger la ci naaj bi protéger la ci taw bi protéger la ci sedd bi am nga déjà départ pour mun a toppatoo leneen kon dëkkuwaay ko ñàkk dafa mel ni ñàkk nga lépp loola tax ba ñu yégalee lii moom monsieur le maire Barthélémy Dias yégal ñu ko ànd ceeg mon frère Guy Marius Sagna dañu ne lii lañ ci mun ñun gannaaw lu ñuy dajale ci suñu bopp ak suñuy ñoñ dajale ko yëkkati ne lii suñu contribution la Tout na bëri na lol lañ ci mën waye liñ ci gëna mën moy andi suñu image associé kook loolu ba képp ko xamné ne yaa ñuy déglu wala yaa ñuy bàyyi xel ñu mën la sensibiliser ci situation bi nga xamné ay nitang a koy dund te muy situation bu metti loola ñu fi andi motax dañuy lancer appel bobu diko lancer sénégalais yépp nak amul kuñ ci bàyyi sëriñ si euh, église bi euh, sénégalais lambda bi ku Sénégal ak ku bitim rew acteur politique ak camp boo munti faré parce que li dafa dafa dépasser, dafa transcender li tubaab naan dafa transcender mbirum politique même étudiant bi bu ci kenn xeeb bopam ku ci am sa 1000 euh, francs ba ku ci am sa 10 millions wala lu ko ëpp ku ci mën japp rek ba ci diir bu gatt ñi mëna a ci kër ñun ñi ñëpp ñu joggé ci kër ñëw fi ñu mën a fekkiwaat kër ni ku def jàppale nga ga, gaa waaye defal nga ko sa bopp ndax loolu ci jaamu yàlla la bopp kon ñi ngi lancé appel bobu, di ko lancé sénégalais yépp waa fii ak waa bitim réew di leen wax ni site bi ñu def gannaaw bi ko première initiative bi nyom Barthélemy dañ ko bëggoon def ci télé ñu teer ñu tere leen ko te jàpp ni waruñu leen ko woon ndax amul lenn loo xam ne dañ koy def pour ñoom seen bopp luy dugg seen poos luy dimbale ay sénégalais la ñi ko tere ñoo waroon njëkk jiitu ci mbir mi kon taxul ñu arrêté dañoo continuer di xalaat ba gis ni am na yeneen matuwaay yeneen jumtukaay ñu war a mun a utiliser ñu ànd ak ay nit yoo xam ne seen xam-xam xarañ na ci loolu ba ñu defar site bii nga xam ne euh, amaana peut-être balaa ñuy pare euh, problème technique yi ñu régler ko Euh, www.edtermesud.com Voilà, il pare peut-être ñu nous régler problème technique bi nga xamné ci Orange Money wala ci Wari wala ci bép moyen de transfert nit na def ndimbalam ñu dem ba xalat lolu lolu tax ñu Sénégalais yi jaarale ko ci avons wa presse bi pour ñëpp jot ci kenn ku ne war Nous mëna japp ba te def ko ngir